bi marraine la ko munoo ci am lu dul kontante mais tamit euh, gën a wàccee sa bopp parce que tamit du dañ la tuddee mbir rek nga jël ko yëkkati koo teg ko ci kaw gënoo kenn kenn gënu la dañ ciy sant yàlla daf nekk loo xamante ne daf ñuy soññ fi ñu tegoon suñu tànk ñu gën ko fa tegaat ndax euh, dañuy lépp daal mooy àdduna amul solo nañ jàppante ñun ñëpp ñoo bokk même entreprise bokk fi ñuy liggéeyee donc euh, yaakaar naa ne mbégte rek laa ci am mu nekk tamit euh, ay kàddu soññee ak jëfu soññee pour ëllëg fi ma teg sama tànk ma gën ko fa teg di kontaan tamit ci ñëpp ñu ñëwoon pour ñëw wuyu si ma ci bés bi euh, xeebaluñ ma bés bi te kontaan naa ci torop dañu nekk si entreprise boo xam ne ñëpp xam nañ ci contexte bi ñu nekk chaque jour ñu ngi ñu ngi ñu ngi on se ñu ngi def lu ñu mën pour entreprise bi euh, génn ci tolof tolof yi mu nekk. donc important na moment yu mel nii ñu am ko pour nous retrouver pour euh, nous recentrer vers l' essentiel yi gën a jàppante ñu bokk ndey ak baay jàppale directeur général. Euh, daal di sumb li nga xamante ni mooy suñu kanam ngir mën ko daan. le sport en général valeur bu important la ci biir entreprise sport dafay yokk bien-être dafay yokk santé te yaakaar nañ ne entreprise bu mu am. Euh, employés yi dañuy gën a épanouir employés yi dañuy gën a am euh, mbégte pour ñëw liggéey si donc le sport est un facteur important dans toute société donc euh, voilà c'est ça centre de tri moo gagné ñu leen di félicité ñi nga xamante ne tamit ñoo jël deuxième mooy sélection Dakar bi ñu ngi leen di ñaax pour année prochaine ñoom tamit yàlla defal leen ndam message bi ma am déjà c'est remercier le directeur général Mohamed Diaité mi nga xamante ne nii te il est représenté par sa secrétaire particulière qui s'appelle Mariama Ndaw moo taxaw nii sama ginnaaw a monsieur Aliou Sané nga xamante ne ñoo def déplacement bi en son nom amoon na yéene ñëw donc ñu ngi koy remercier ci participation bi mu def boobu ba léegi arrêté wul di ñu yónnee message di ñu ñaax euh, ñu profité tamit ci occasion bi pour lancer ko benn doléance mooy poste dañu soxla terrain de football on a les moyens on a le foncier pour le faire on a l'endroit pour le faire boobu ba léegi joueurs yi ñu ngi am loolu comme doléance donc ñu ngi koy ñaan ci magistère am mu dimbali ñu joueurs yi gën a am ay euh, infrastructure de sportive ba pare tamit joueurs yi am terrain bu mel nii nga xamante ne ëllëg du ñu soxla fay au contraire dañuy ñëw suñu terrain jouer normalement di ko jaajëfal bu baax di jëlaat honneuru jour bi yëpp di ko tegaat ci loxoom ndax tey jii suñu naan Mame Fatou euh, département communication wala Mame faatu chargé de communication moom moo am confiance ci man ba loolu am donc ñu ngi koy delluwaat lépp lu baax ci bés bi ñu koy delloo le directeur général Mohamed Diaité